maa ngi kontaan bu baax a baax ci li nga ma delluwaat. parce que monsieur le ministre du toog te du ñu profité ñun ci occasion mhm. parce que puisque c'est une première fois. monsieur le ministre man su may wax moom wax dëgg yàlla. je mhm. parle pas sur le nom de Zarko. Mhm. man damay wax ci turu l'ensemble zone 7B jeune de Grand bëgg nañu ñun Grand Yoff jeunesse bi man book dama part bëgg naa ngeen gëstuwaat Grand Yoff bu baax a baax a baax a baax a baax. parce que Grand Yoff dafa néew jàppale. Mhm. Grand Yoff man bi ma bi ma juddoo sama yaay ak sama paap ba léegi autorité bu bu tax ma naan kii c'est une autorité buy jàppale jeunesse su Grand Yoff gisaguma ko man sama bët ba léegi. <coughs> te du ci état bi du ci opposition bi du du ci kenn maanaam jeunesse su Grand Yoff dañoo wéet amuñu ku ñu gëstu amuñu ku ñu jàppale je parle pas de Zarko. tout à parce que parce que Zarko mun na lijjanti boppam. moom lañ ko bàyyi ci yu ndaw yi rek muy comp benn benn garaaw da koy gérer mais sama raq yi sama raqaat yi joxuñ la woon ay pour nga jox ko jeune Grand dam ko maye yëpp jox jox leen ko ñi ñi ñi ñi ma ko war a jox kan la woon Pape Malick wala Amadou non Amadou moo ñu ko may d'accord ma jël ko séddale ko booyi comprendre nga ba pare yëkkatiwaat sama xaalis jëndaat yeneen moto mayaat ko ñeneen hmm. parce que euh, man def naa Europe demoon naa ba nekk ci jàmm mais ma xam ni bàyyi naa sama ginnaaw ñoo xamante ni ay raq yoo xamante ni su ma demee comme que man rëcc naa ba pare su ma demee ñoom dinañ sonn mu reculer waat pour ñëw ànd ak ñoom rien que pour jéem leen a pousse ba man fu ma mën a yem. Hmm. comprendre nga. Hmm. mais comme yow nag yaa ngi fi te ay porte parole président loolu dañ la koy yóbbante. tout ko kilifa gi président Zarko nee na waa Garab sonn nañu lottu nañu damm nañu dee nañu. voilà jeunesse bi amuñu xëy kenn faalewu leen kenn lijjantewu leen comme si ni ñun dañoo génne ci société bi te loolu daf ñu metti Grand Yoff mooy baqanu Ndakaaru mais Zarko am na ñaari candidat dëkk Grand Yoff kan ak kan euh, Khalifa dëkkul Grand Yoff la dëkk Boubacar Camara fa la dëkk ñu ngi ñëw jigéen yéen naada <laughs> gisuñu leen ñu dune jono habla con jono lo que no visto hablo solamente lo que he visto tío hablar hablar español claro monsieur le ministre balaa muy jeexal nga nga jël yóbbante bi mm. loo ko ci rassuré balaa ñu dem ci Modou Mbaye ñu tàmbale exemple ñor nañ trop nga baal ma mm-hmm. xam nga euh, état moom euh, tuuma bi dafa rëy mm-hmm. mais nag mooy kii mooy ndey ji Cheikh moo war a jàppale ñëpp gis nga mm-hmm. sànq sama mbokk yi dëkk Touba man may taalibe am kër Touba yàgg fa bi ma doonee gone ba léegi yenn saa yi nga dem ci jotaay yoo xam dañ leen naan yéen de loo leen am yóbbu ko Touba ak Tivaouane loo leen am mu yem Dakar alors que état dafa war a defal Casamance dafa war a defal Saalum dafa war a defal Ndoukoumane ndaxte mhm. li ñu yor nattu ñëpp la. Mhm. maanaam dërëm bi jógee Casamance bi jógee Pakaw bi jógee Fulaadu bi jógee ñoom ñoo daje. Mhm. ñu war a def ay politique publique politique publique yi nag doo ne quatorze région ma diviser ko par quatorze déedéet dafa am fu mu gën a jàmpee loolu moo tax président Macky Sall bi mu ñëwee mu indi équite territoriale. da nga daan gis dëkk boo xam ne xàll maanaam piste li ñuy wax rang bu egg sax boo xam ne. Ah. egg na ba ci dëkk bi amul. da ngay jéggi comme li nga daan wax nga jégg àll bi di dajeeg ay bukkeeg yu demee noonu loolu état du Sénégal li mu ci def ci at yu mujj yi kenn xamul nu mu toll mhm. ak ndaw yi tamit même chose boo demee ci faju bi boo demee ci ndox bi mais pays en développement lañ encore c'est vrai que suñu PIB par habitant jóge na mille deux cent dollars par habitant egg na léegi mille sept cent ci douze ans yi ce qui veut dire Sénégal yokk na presque quarante pour cent ci wàllu PIB par habitant mais des na encore lu ñu war def ñaareel ba mooy suñu démographie suñu démographie dafa gën a jeune donc nit ñi dañ gën bëgg li ngay def dafa war a gën a dem ci njàng ci jàppale ak yu demee noonu léegi nag état ni ñu ko defee mooy état dafa yor politique de publique yu mag yoo xam ne ñëpp a ko moom mais gox goxaan yi ñoo war a góorgóorlu hmm. maanaam ki nga xam ne yaa yor mairie Grand Yoff yow yaa war a fexe li état di joxe parce que état da lay jox fonds de concours jox la fonds de dotation ba pare yow bitik yeeg activités ya fa nga cay collecté dara. Mhm. mais da war a fexe fu nekk di dem dara di fa dem lépp nag mënul ne comme ni ma la ko waxee. boo demee Los Angeles dem Paris dem New York di nga fa fekk ay nit yu nekk ci ay suufu garab di di di dundee noo xam ne nangam mais nag effort boobu dañ ko war def moo tax ñun ñii yenn saa yi nit ñi dañ la man ministre bi naa ko mais jàpp que li nga yor as néew da nga ciy jàppale jàppale jàpp nit ñi dañ ne yow balaa le 5 le 10 dem na. sa sa sa dama lay expliquer sa sa sa sa sa épargne bopp da ngay dem ba yenn saa yi weeru koon nga dagg ci génnee joxe parce que mënoo seetaan nit ñi parce que am na fu la yàlla teg foo xamante ne peut-être waroo gàntu danga war a def na mais effort yooyu daal xamal ne bës bu ne ñu ngi koy def man xam naa ay responsable politique yu dëkk Grand Yoff yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di def li nga xamante ne mi ngi def mais nag dañu yor population bu jeune daanu dajul suuf li gën a mhm. mooy fexe formation gën a doy mhm. fexe tamit nit ñi di faju fexe tamit nit ñi di góorgóorlu ngir ñu mënal sa bopp ku mënal sa bopp rek noppal nga état noppal nga àdduna gardez gardez cette question en suspension si Zarko ci li ma li ma waxul mooy ñun musuñ am ministre tout à fait grève musuñu am ministre yàlla baax na musuñu am ministre non Khalifa Sall Khalifa Sall ministre la ministre ministre non libéraux régime boobu ay nag monsieur am na benn mais boobu dañoo judd ñun boobu judd wuñu yàlla na ko yàlla def am na am ay cadre lañu yor grand mais am na benn jour ñu demoon ci école Kalidou Sy bu Grand Yoff fii waaw doon fa joxe ay don ak benn marque bu ma doon àndal ay cahier ay fourniture scolaire et consort ñu la waa école bi ñu ne ñoom